ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne tey moo fi Serigne Touba di ñaan mooy du mu yàgg fi te ànd ak wér di nuyu kilifa yu tedd yi nga àndal yëpp di Cheikh Mouhamadou Fadil ak Serigne Bara ak Cheikh du Fadil ak Serigne Cheikh ak Serigne Oweysu ak Serigne Fallou ñoom ñëpp ñi fi teew teewal ànd ak yow ci bis bi comme ni nga ko waxee rek ñu ngi siyaaree Serigne Moussa bu baax. di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax kàddu yi nga seere ci moom rek moom la ñëpp xam ci moom mooy kilifaam bu fi mas a nekk rek topp nañ si ginnaaw laxasaayu doon sa jëwriñ te kenn du ko jiitu ci liggéey ba ba suñ borom def tey mu ne ci kanamu njaboot gi yëpp kon muy kilifa goo xam ne itam ku mat kilifa la ndax kilifa bu melee na war a mel xam la mu war a xam te kenn déggu ci lenn loo koy xebete wala jënn jëf joo xam ne lu manqué la bokk na ci ñi nga xam ne ndam yoon wi lañ waxtu ne dama koy seere fu mu kon dañ koy ñaar bu baax mu yàgg fi te ak rakkam yi topp ci ginnaaw yëpp di teg nuyoo bi ci sa loxo yow mi nga xam ne yàlla def na ba Cheikh Sidi Mokhtar jëlee ndigal li yónni mu ko ci moom ci yow laa jaaroon ndax wa atul bu yoota min abwaabiha yow lañ def ngay seen buntu waaye ñu di ngay suñ buntu ci ñoom bañ accès wax la ko itam nga wane ci yitte ak positif ak taxawaay ak xalaat yu rafet rafet seet na liggéey ba gën a baaxee rek ak na mu gën a rafete nga waxe ko noonu ñu ànd ko dem ba ci moom euh, sëriñ bii di wane ci yitte ak positif ndax ku ne xam na ne biñ ko koy jox ak fi mu toll euh, bu ko jëfewut bu du tee day mel ne def na ko ndax yéenam ndax talu ko woon waaye pëstéefam ak yéenam rek ak taxawaayam moo tax liggéey bi mën a demee nii liggéey bi nag eh, tawféex la jur rëy maa ngi la koy seeree léegi ndax xam nañ li ngeen ci daj coono yi ak taxawaay bi pëstéef bi ak li ngeen ci wane waaye nag du kiimaan ndax ma Massamba day lépp Serigne Touba liñ mën a seere ci moom. rakki sëriñ bi la di doomam di taalibeem ñett yëpp dafa daje ci sëriñ Touba it woon ko lool te la ci jiitu mooy biir kër gi yëpp moo doon jëwriñ biir kër gi lu suñ ba santaane ci liggéey ci biir kër gi moo ko daa jite di ko taxaw ak ci biir kër gi ci boppam fu fu ñu mas ame amee jaaxle ci sëñ biit ci moom lay ñëw mu gindi leen delloo si leen ci lu xóot loo xam ne sa luñ mën a wax ci biir rajo waaye diggam ak sëñ bi ni ko suñ Cheikh seere léegi rek xam nga asaabi kenn nu jumi bi ay yéexi muxtadaytum muxtadaytum ihtadaytum eh, kon waa kër Serigne Touba di rakkam ak i doomam ak ñim jëkke defar ñëpp noonu la Serigne Touba def ci ñoom koo ci tànn di ko waxtaan rek day mel ni kii mooy sayyidul axyaar yi waaye moom yàlla dafa def muy lépp sëriñ bi bëgg sëriñ bi lool nuru ko yi ci jëf ak melokaan ak jikko yàlla def itam ci taarix liñ nett bi daje bi sëriñ bi mujj def ci gaaw ba muy xutbatu am sosin bokk na ci lam barte woon lu waaye du joxe na ko jox Seex Masamba kon loolu qualité farayam ak yeneen yu bare bari yoo xam ne bu ñu ko doon lim ci jataa bi ci lañ ci xam bu jeex kon diggam ak sëñ bi doy ne sëkk ci xaside yi ni ko ci sëñ bi féetale ak liggéey bi mu ci def foofu sëriñ bi masaan di waxtaanee it ndax wax sëñ bi ñuy ëpp ci mbooloo mi ñenn ñi daawuñ ko mën a dégg ñi ci des daawuñ xam li sëñ bi bëgg a wax waaye sëñ bi dafa ubbi xolam ak xelam def ci moom xar baax ju rëy xam bu sëriñ bi nettalee wax ji ba jeex sëriñ masaan bu mooy dajale waat nit di leen ko leeral ba nit ñi mën koo dégg di ko xam li ëpp ci waxtaanee sëriñ Tuubaa yi ngay dégg ci moom la jaar kon moom diggam ak bi dafa dafa dafa sori lool. yàlla defi nag bi sëriñ bi ñu bisoo Tuubaa taxawaay boobu la taxaw ci Cheikh Mahamadou Moustapha ak doomi Sëriñ Tuubaa yi taxawaay ci ñoom taxawaay waajur waaye taxawaay ci ñoom taxawaay bi mu taxawee woon ci ñoom nga xam ne àdduna sépp xam nañ ko loolu nag mooy dellu soit ba ci doomam yi bi fi bàyyi di Serigne Modou Baye ak sëriñ Mahmoudan ak Serigne Saliou ba ci suñu baax ak ñi nga xam ne sax toogu ci jataay bu mu simbul fatixe nga xam ne ñëpp xam nañ positif moom itam kon dañuy sant bu baax a baax rek ndax keroog bu may ñëw ci suñu cheikh dama ko wax ne ko liggéey bii de day mel ne liggéey ba Cheikh Abdoul Ahad defaloon suñu Mahamadou mu defoon ci taxawaay bu mu def ak positif bu mu ci def ba nëgë ni boo duggee ci kër suñu Tuubaa fekk fa ba tubaab suñu Mahamadou kon la ko Cheikh Abdoul Ahad wax na ko mu nekk sa seer ëllëg waaye fii itam di kër suñu Tuubaa goo xam ne Serigne saaliw moo ko rëddoon Cheikh Abdou Lahad moo ko naa doon bàyyi ko fi Serigne Saliou miir lu ko tàmbali liggéey bi ne itam li ci jublu mooy dama bëgg kër Serigne Touba gi dafa jege jumaa ji nekk ci biiru orumi Serigne bi moo bu kër gi àggee mboolem gan ñi ñi ci ëpp ñu leen dalal fii kon loolu mooy sababu kër gi mu ñoroon ko itteen ko da defaroon yenn plan yi ci gën a bari sax ba ci jàkka ji waaye liggéey bi fi ñëw xam ne yitte ak taxawaay ak positif bu rëy rëy defe ngeen ko ndax bañ indee plan bi jëbbaleen ko rek lañ ci noppi waaye man mi ko doon indi sax xalaatum moo ne liggéey bi dana demee nii kon lii moom euh, yëmut rek ci jëf waaye yéen juree du ko lantaay ndax lii moom ci profetaay bi mënu ko weesu bëtiwaa mënu ko weesu yaatuwaay noonu amul leen loo boo fi duggee sa dana xalaat ne ku ci dolli woon nangam loolu nag kon dañuy ñaan rek postef bi ngeen ko jëfee ak yéene ji ak ku ci dugal alalam rek ak ku ci yéene woon a jëf day ceeg payu Serigne Touba day ceeg payu ma Massamba te dana ci am itam nag di leen jot li kàddu yu Cheikh Mouhamadou Mountakha ak i cantam ak i ngërëmam keroog ba ma jotee itam keroog gaaw laa ko jotte lépp mu rafetlu ko loolu itam xamal ma ne itam naa ñëw waxtaan ak yéen ñëw xool ko comme ni nga ko euh, waxe woon waaye lii moom damay jiitu rek waaye àllarba wala alxamis dana ñëwal boppam comme ni ngeen ko bëggee woon bu dikkee euh, dugal boppam ci biir jot leen kàddu yi cantam ak ngërëmam doo door a dellu incha allah loolu moom sëñ bi nangu na ko bu noppi incha allah àllarba wala alxamis dana ñëw ngeen ci waxtaan nu mu gën a jube ci jube ci yéen rek néew noonu la ma ko waxe bu ko defee dana ñëw boppam bu dikkee xool ko euh, ànd koog sëriñ bi jot leen cant cant ak ngërëm ndax suñu tubaakat bu liggéey bu liggéey loo mu Massamba cant gi ci loxoom rek la maa waaw kon nag loolu moom mm, xamee na ko noonu te xam ne Cheikh suñu Moussa li mu doon ci moom ay taxawaay bi mu taxawee ci moom kon loola dara doyu ko ci lu may yëkkati tànkam ba agsi fii xool ko santal leen boppam ñaanal leen boppam gërëmal leen boppam kon ñu ngi di sant suñu Cheikh bu baax. di la ñaanal yow itam ci taxawaay bi ndax na nga taxawee ci kër sëñ bi xam nañ ko ak ci njaboot gi ak ci yoon yëpp nag taxawaay bu mat sëkk bu rafet boo xam ne doon luy ittee yoon wi di ittee sëriñ bi kenn du la ci jiitu te lu ci bari yàlla te na ko ndax sa responsabilité ko xëy na say at it ko waaye kenn doyulu ci loolu nag taxawaay sa waajur rek la ñuy fàttali moom mi fi nekk tey itam noonu rek la nekk woon ak kilifaam kon nag buñ la doyloo ba jiitalee seen kanam euh, daa fekk nga mate ko kon ñu ngi lay ñaanu ñuy tam bu baax euh, ak sarak suñ borom dëgëral la kàttanal la may la wér yaram ba nii nga taxawee ci kanamu jawat gi rek ci seen ginnaaw waajur yàlla yàggal ko lool ba liñ bëgg ci te di la koy jëfloo waxtu ni ngi ci gën am ndam ndax taxawaay bi moom dara yeesu ji ñu ngi sant bu baax di gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh